إلى أبغيبه بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى آله وصحبه ساداتنا الفضلاء mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla moom nga xam ni wax ci alquran ne amul genn kàddu goo xam ni nit ki daf koy génnee ci làmminam lu dul am na ñaari malaaka yoo xam ni ñu taxaw di déglu loolu muy wax ngir bind ko te amal qiyaam dinañ ko ko gaaral ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu nga xam ni nee na ci xadis képp koo xam ni gëm na yàlla gëm bis penc na wax lu baax wala mu noppi suñ jamono jii nag jamono ju doy waar la jamono joo xam ni dafa am feebar bu doy waar feebar bu rëy rëy boo xam ni du bari ci jullit yi feebar boobu laal na leen feebar boo xam ni yun saa sallam euh, tere na xeetam ñu dugg ci ñu sori loolu maanaam tere na xeetam ñu jege feebar boobu mu muy saa sallam muy feebar boo xam ni feebar bu garaaw la muy feebaru rumeur xam ni mooy dégg nañ nangam dégg nañ sàngam ku nekk di ko toxal xamoo xibaar bi ndax wér na wala wérul di toxal xibaar boobu di ko wax nee nañ diw nangam tuumaal diw wala ñu wax ci diw nangam ci rajo yi wala ci tele yi yow nga gëm loolu di ko tasaare loolu ci feebar yi gën a mag la ndax nit ki yén saa sallam mi ngi wax ci xadis mu ne képp koo xam ni dégg na ab wax jël wax jooju di ko toxal moo xam wax jooju wax ju jóge ci yén saa sallam la wala wax joo xam ni wax ju mu xam la kooku na jàppee boppam su fekkee wax jooju du dëgg na jàppee boppam ci yi nga xam ni ñoom la yàlla di mbugal yowmal qiyaam moom bis toog na sallallahu alayhi sallam ci benn jullik fajar bi mu toogee biñ jullee fajar ba noppi ndax su toogaan fajar sallallahu alayhi wa sallam dafa daan firil jullit yi seeni gént mais moom yéen saa sallam géntam kon wax yu la ndax yenentu lu mu gént loolu dëgg la mu ne biig de am na ñaari malaaka yu ma dikkal ànd ak man di ma wan ñi ñuy mbugal yowmal qiyam wala ñi ñuy mbugal ci seen xabru mu wan ma ci ñoom ñuy mbugal jenn waay joo xam ni malaaka yi dañu jël benn si boo xam ni ci feer la di di ko xar ñaar ci benn riwaaya suñ ko xaree ba mu nekk ñaari xaaj yàlla delloowaat jëmmam ñu xaraat ko ñaari xaaj ci beneen riwaaya yéen saa sallam mu ne ah, niñ ko doon bugalee mooy malaaka yi ñu ñëw ba ci bët bi xar bët bi ba bët bi ba xar-xar bi egg ci doq bi ñu ñëw ci bakkan bi xar ko ba mu egg ci doq bi ñu xaraat tànk yi yéeg ci kaw ba mu egg ci bopp bi ba egg si ci kaw noonu lañ koy def yaram bi di tàqalikoo su tàqalikoo muy yuuxu yuuxu yi metti di sentir mbugal bu tar su paree noonu rek yàlla delloowaat yaram bi ni meloon malaaka yi di ko continuer noonu ba keroog yowmal qiyaam yoon saa sallam gis mbugal bi metti lool mu ne waa kii lu waral ñu koy mbugal mbugal bi yoon saa sallam ne kii li tax ñu koy mbugal mooy dafa fen benn fen boo xam ni daa wër àdduna daa fen fen boo xam ni fen bu wër àdduna la waaw dafa wax joo xam ni wax ju wër àdduna la loolu mooy rumeur maanaam wax joo xam ni wér na àdduna te wax jooju mu wax nekkul dëgg te loolu xëy na ci jamono yu saa sallam lu raar la woon nit waxaan wax wax jooju nekk naka su dul noonu wala nekkul dëgg wax jooju tas ci àdduna mi lu raar la woon wala bokk yombul woon mais jamono ji xadis boobu ci jamono ji lay gën a dëggu ndax jamono bii sa néeg ngay toog wala nga toog sa buro wala nga toog ci benn bërëb te sa téléphone wax ci jenn wax joo xam ni yaa ko sos wala yaa ko créé sànni ko ci internet bi rek mu tas nit ñi gëm ko mu tas nit ñi gëm ko loolu nag nekk mbir boo xam ne mbir bu doy waar la ndax rumeur am na ay dëkk yoo xam ne moo leen tas am na ay kuréel yoo xam ne ñoo nekkoon moo leen tas rumeur tax na bàyyi dégg mbir ci doomam mu nekk rumeur mu rey doomam rumeur gi ñuy tas tax na euh, jabar walla boog jëkkër dégg genn wax ci ci ci jabaram wala ci jëkkëram tas seen diggante tax seen diggante tas te diggante boobu delluwaatul ba keroog ñi xam ni loolu nekk rumeur la woon rumeur tax na ay xeet wala ay waaso di xeex seen biir di rayante seen biir ndax génn rumeur goo xam ne dañ koy tasaare rumeur nekk loo xam ne lu doy waar la waaye nag nekkul loo xam ne tey la tàmbali ndax suñ boroom lañ njëkk di jox ay tract di jox ay rumeur di joxe ay rumeur ci moom ndax moom yàlla moom lañ njëkk wax ni daa am ay doom nit ñi di ko toxal bal waa Makka lañ doon wax naan yàlla subhanahu wa moom dafa am sax ay doom yu jigéen te doom yu jigéen yooyu ñooy malaaka yi waa Makka di ko tas gëm ko di ko tasaare te li gën a yéeme ci rumeur di ko tasaare yén saa salaam dafa doon wax képp koo xam ne dafa dégg ab wax jël wax jooju tasaare ko mu ne kenn ci fenkat yi la maanaam kenn ci fenkat yi la mooy lan mooy ki nga xam ni moo sos wax ji kooku ku fen la waaye ki nga xam ni leer luwul ci wax ji dafa jël wax ji rek tasaare ko di ko tasaare ci nit ñi kooku tamit ci ñooñu la bokk te in saa salam dafa doon wax ci xadis mu ne nit koo xam ni yàlla bëggalu ko lu baax da koy xiirtal muy wax lu dul dëgg di continuer di wax lu dul dëgg ba nekk koo xam ni day kàccoore su kàccooree yàlla di ko xëcc ba xëcc ko biir safara kon rumeur lu doy waar la rumeur moo tax euh, Ousmane Ibn Affan ñu ray ko ndax gaa yi ñëw nañ ni Ousmane ay gouverneur yi mu fal dara taxul mu fal dara taxul mu fal leen lu dul ni ci banu Umayya lañ bokk ci xeetam te gaa yi xamuñ ni ñooñu Umar moo leen fa tegoon Ousmane naa fan fekk leen fa dëgëral leen ñoom ñu dégg rumeur yooyu ne kii waa dëkkam wala waa ñoñam lay fal ñu rey ko ay rumeur moo taxoon euh, suñu yaay jooju ju baax jooju di Mariam as-Siddiqa nit ñi ne njaalookat la ay rumeur ndax gis nañ suñu yaay Mariam di dox jékki-jékki ñu gis ko mu yor benn bébé wala benn xale ab liir di dox ak moom waa banu Israil ñëw ne ko yow Mariam sa baay de ku baax la woon sa yaay it nekkul woon njaalookat commencé di ko wax yow njaalookat nga ndax lan gis nañ mu téye xale rek ñoom seen xel ci lal la dem ci lu ñaaw ne kii moom ku bon la kii njaalookat la rima bi commencé daw banu Israil ñépp naan Mariam njaalookat la ba keroog yàlla di ko wax na joxoñ liir bi ba liir bi di wax naan indi abdullah aataani al kitaab rumeur yooyu tas na ci yenent yi yenent yi doon nañ leen jiiñ ay dof yun saa sallam nee nañ dof la waa màkk bu leen ko jege képp ku aj si màkk di ko daw jékki-jékki nañ ne bu leen ko déglu waykat la li muy wax shaair la ñu jékki-jékki ne bu leen ko déglu kii njabarkat la su ngeen ko dégloo mu wëlbati seen xel yi loolu di continuer ci nit yu baax yi bal nit yu baax sax yi nga xam ni ñoo jiitu woon am na koo xam ne ci ba banu Israël la bokkoon ñu ko doon wax Jurayj ji waa ju baax la woon dafa tabaxoon benn jàkk yoo xam ne ci la doon jaamoo yàlla moom Jurayj di jaamu yàlla bis muy julli yaayam dikk ci foofu muy jaamoo yàlla ne ko Jurayj fekk mi ngi taxaw di julli ji naan ci xelam ndax damay wuy yàlla wala damay wuy sama yaay sama julli ji wala sama yaay sama julli ji wala sama yaay noonu mu bàyyi yaayam continuer julleem yaay ji def ko ba muy ñetti yoon jure ji tontuwu ko yaay ji ne yow yàlla maa ngi lay ñaan sama doom ji de bu mu faatu mukk fekk wanoo ko kanamu jigéen yi maanaam mu jaxasoog jigéen ñi moo tax wayjur bu mer mukk ba ñaanal sa doom lu bon ndax soog ko ñaanelee mu am soog ko ñaanelee mu am bul mer ba ñaanal sa doom lu bon bi mu ñaanelee loolu jure ji nga xam ni jaamukatu yàlla bu mag la woon jure ji toog ba jëmmi jamono waa banu Israël toog di waxtaan naan jure ji de waa ju baax la Juray ji jaamukatu yàlla dëgg la xam naa rek kenn mënu ko def loo bàkkaar moom noonu am senn ndaw soo xam ni ku rafet la ku taaru ne man mën naa mooy loo yàlla Juray ji gars yi ne ko mënoo loolu mu ne bàyyi leen ma rek ma dem ñu bàyyi ko mu dem bi mu demee ci pale bi fekk fa jure ji di ko woo Juray ji faalewu ko muy def ay manière Juray ji du mooyu ko mu xam ni fii pexe amu fi. kon yaay yi ñaan gi mu ñaanoon ñaan gi am na mais Jurayj wan ko ginnaaw ndaw si génn gis benn sàmmkat foofu rafetlu ci sàmmkat bi ba xemmem loo sàmmkat bi boppam ba sàmmkat bi tàmm tàbbi ci ndaw si bi mu tàbbee ci ndaw si ndaw si am doom bi mu amee doom mu jël liir bi yóbbu waa banu Israël ne leen gis ngeen li ma ne doon wax ci Jurayj Jurayj de fexe naa ba mu tàbbi ci njaaloo fexe naa ba ji am ak man doom bi waa banu Israël bi ñu déggee lool rek lan lañ def jéemuñ wax ne kii ci jaamu yàlla lañ ko xamoon jéemuñ wax ni kii ku baax lañ ko xamee woon mais lan lañ wax xay kii moo bon kii moo yées kii moo jur xale bi kon li muy woote woo jaamu yàlla yëpp ndeke moom ko bon la rumeur bi commencé daw ñëpp jàppee juree ji ko bon kon ni mu amee jamono ji jàppee ko ko bon def seen groupe ñoom banu Israël utali ci jàkkam ja bi demee ci jàkk juree ji jooju fekk fa juree ji xëcc ko di ko dóor dóor yi metti jël jàkk ji màbbal ko ne ko yow yaa bon yaa yées yow yaa tàbbi ci ndaw si di woote woo gëm yàlla dóor juree dóor yu metti ne ko tey nag dañ lay rey juree ji ne waaw balaa ngeen may rey bàyyi leen ma rek ma julli ñaari rakk ñu ne ko waaw julli waaye sa julli gi du jëriñ dara ndax yow moom ko bon nga ba noppi moom juree ji ci la taxawee julli ñaari rakk bi mu jullee ñaari rakk yéen saa salaam mu ne yenent bi muy nettali xadis bi mu ne yàlla ñetti liir la waxloo ci bersu maanaam ñetti liir la waxloo fekk ay ay liir lañ liir boobu bokk na ci juree ji dem ba ci jumbaxi xale bi laal ko ne xale bi kuy sa baay xale bi wax ne sama baay de mooy diw sàmmkat bëre ci la banu Israil soog a gëm ni juree ji ku baax la kon ñoom dañ pare woon pour rey ko suñ ko reyoon dee dem safara ñoom ñëpp ndax xibaar moo leen dikkal rek ñoom ñëpp ñu gëm parce que ndaw si indi na xale indi na doom wan leen ko ñu jàpp ni loolu dëgg la ba tuumaal Jurayj ba def ko la ñu koy def ci noonu ci lañu delloo ginnaaw ne Jurayj soo buggee sax mën nañ tabaxalaat sa jàkk ji defal la ko or mu ne delloo leen ko ni mu meloon ñu delloo ko ni mu meloon mu delluwaat di jaamu yàlla kon rumeur li mu yàq ci àdduna kenn xamul lu mu su njaay Aïcha defoon nañ ko noonu nafeq tasaare ay xibaar ci moom ki ñuy wax Abdullah ibn Ubay ibn Salul kooku nga xam ne moo nekkoon bopp naafeq yi bi yéen saa sallam yéexee suñu yaay Aysa nekk ci ginnaaw yéen saa sallam ànd ak armée bi di dox di dem ñu jékki-jékki kenn ci saxaaba yi ku ñuy wax Safwan ibn Mu'attal as-Sulami ñëw ci ginnaaw fekk suñu yaay Aysa fekk xàmmee woon na ko laataa ñuy wax wàllu muuraay bi mu ñëwee xool rek mu tourné suñu ASC yéeg ci kaw berkell bi wala ba gëléem bi mu ànd ak moom jiital gëléem bi di womat gëléem bi di ko yóbbu moom Abdallah ibn Ubay ibn Salul bi mu gisee loolu deful waxul ne kii day jàppale soxna si saa sallam de lool de comme que naafeq mu def dafa dem ci moroomu naafeqam yi ak lenn ci saxaaba yu baax yi ndax numéro yi léeg-léeg ñu baax sax dina leen dal dem ci yenn ci saxaaba yi waxu leen suñu yaay Aysa dafa am lu mu def de wala dafa njaaloo wala nangam de dafa dem ci saxaaba yi ne leen xool leen seen ginnaaw ñu ne ko lan mu ne xool leen rek xool leen sama ginnaaw li ngeen di gis li may gis ndax yéen koy gis ku tourné xool comme que am kii bu def ci yow nga tourné ne laay fu mu avancé rek dem gis fa benn kuréel ne ndax li may gis sama ginnaaw yéen koy gis gars ne ko lan ñu ne mu ne xool leen sama ginnaaw ku nekk xool def ni fekk liñ gis nekkul lu dul seen góor goo xam ni ku baax la di mat benn gëléem gëléemu soxna si yéen saa koo ko nekk ci kaw te yi dañ ci daan def toogu boo xam ni doo gis sax nit ki nekk ci biir noonu la al munafiq rasul munafiqin di ubay abdullah ibn ubay ñu salul di def fu mu romb rek ndax li may gis yéen a koy gis xool leen seen ginnaaw ku nekk di tourner di xool sa ginnaaw ba xibaar bi tas toog nañ un mois yoo xam ni waa Madina lool la ñuy waxtaane ñu bari ci saxaaba yi tabbi ci loolu ñenn ñi gëm ko mu naafeq yi gën a xumbal rumeur bi ku nekk naan yenent bi soxnaam def na nangam moom Ubay ibn Salul laataa sax muy egg ci yenent saa sallam xibaar bi tas na ba yenent saa sallam jot ci affaire bi metti yenent bi yóbbu ko foo xam ni fu yéeme la ba suñu yaay Aysa delluwaat seen kër weer mu toog di ko jooy moom suñu yaay Aysa moom weer Abubakar Siddiq jommi soxnaam jommi ñépp jaaxle ndax xam nañu seen doom du tàbbi ci yenn yi loolu mënul nekk mais naa fekk yi ñoom di xamb taal bi lenn ci nit ñu baax ñu dugg ci lool ku ne di ci wax ba keroog yàlla di wàccee ab aaya di ko setal ci kaw asamaan di ko setal ne ko ne kii deful dara kii ku baax la ba leeral ne ñu baax ñi ñoom ñu baax ñi rek la leen yàlla di jox yàlla tagg ko ci alquran yoon saa yàlla jox ko ndigal ne ñooñu nga xam ne ñoo doon tas xibaar bi nañ leen duma ku nekk dañ ko doon quatre-vingts tuddee leen ay fenkat yàlla leeral ci aaya yi ngeen xam ni nekk na ci aaya yooyu wala ci saar boobu di sóoratu nuur di ci leeral nit ki su xibaar dikkee nan la war a def ndax loolu yàlla jàngal nañu ko bu yàgg ci benn saar bu ñuy wax suratul xujuraat ñu koy wax suratul aadaab saarub teggin yi noonu la ko borom xam-xam yi di tuddee saar boobu borom bi wax yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla su leen xibaar dikkalee na ngeen leerlu fatabayyanu ci yenn aaya yi fatabayyanu arab yi suñ koy wax mooy na ngeen leerlu da ngeen xoolaat seetantalaat ci yeneen riwaaya ci yeneen jàngin yàlla ne fatasabbatu mooy def leen ndànk ngeen teey te xoolal yàlla ni mu mbaandoo maanaam ki nga xam ni dafay ñëw di indi xibaar bu garaaw yàlla laataa muy tàbbi di wax naan ndax da xool ndax xibaar bi wér na wala wérul yàlla daf ko tuddee faasiq kàccoor ba noppi in jaakum faasiqun mooy waajoo ji indi xibaar boo xam ne tas na réew tuddee ko faasiq ba noppi maanaam tuddee ko kàccoor in jaakum faasiqun wax la in jaakum muminun in jaakum faasiqun mooy kooku di indil xibaar buy tas réew xamal ni kooku faasiq la ku génn topp la su fekkee nag xibaar bi bi mu wax dëgg la kooku jëwkat la su fekkee xibaar bi mu wax du dëgg kooku ah, def na li ñuy wax ràmbaaj kon lu garaaw la moom rumeur kon yéen saa nee na kooku nga xam ne moom la ñuy mbugal yomal ci biir xabroom mooy kooku nga xam ni day wax genn kàddu kàddu gi tas ci àdduna bi lépp nekk ay kàcc lépp nekk ay naka su noonu ki nga xam ni tamit moo ko gëm di tasaare loolu kooku duggaale ci bàkkaar bi ndax yéen saa salaam mi ngi wax ci benn xadis. mu ne kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma same maanaam doy na rek nit ki ñu tuddee ko ab fenkat lépp loo xam ne dégg na ko mu nettali ko lépp lu mu dégg rek wax ko maanaam nit koo xam ne lépp lu mu dégg wax ko yun saa salaam nee na kooku fenkat la ndax lan ndax su fekkee loo dégg wax ko léeg-léeg di nga nettali loo xam ne ni nga ko nettalee du noonu di nga nettali mbir fekk ni ko nettalee du noonu kon tas xibaar lu doy waar la tasaare ay xibaar lu doy doy waar la bàkkaar bu rëy rëy la surtout nag su fekkee xibaar boobu xibaar buy tas réew la bari na ay réew yoo xam ni tas na ñi leen tas mooy rumeur boobu bari na jëkkër ak jabar ñu tàggoo li leen tàggale mooy ay rumeur am na fii senegal benn jur bu góor boo xam ni rey na doomam ndax rumeur bu mu déggoon ci doomam bari na ay jigéen yoo xam ni acide nañ seen jëkkër ndax ay rumeur rumeur lu doy doy war la war jullit bi war na xool saa bu ko xibaar dikkalee nan la war a def li ci njëkk su fekkee xibaaree nañ la xibaar goo xam ne ci sa mbokku jullit ya mooy lan mooy nga am xosnu van rafet njort ci moom nga am rafet njort ci moom ndax yàlla bi muy yedd saxaaba yi nga xam ni gëmoon nañ liñ tuumaaloon suñ yaay Aïcha allah yàlla wax lawlaa is samitumuuhu vanna al muminuuna wal mumina wal muminaatu bi anfusihim xayra waaw moom ñoom sax lu tax biñ déggee lii amul njortu gu rafet ci seen bopp ñoom jullit yu góor ak jullit yu jigéen ñi biñ déggee wax ju ji rek ndax amul njortu gu rafet ci seen bopp ñoom jullit yu góor ak jullit yu jigéen ñi mooy lan mooy ñoom jombale nañ jëf ji seen bopp te xam nañ kii ku baax la te jullit mooy seetu moroomam maanaam jullit mooy seetu moroomam kon comme que li nga xam ni da koy setal sa bopp suñ ko waxalee sa mbokku jullit bu ko gëm xosnu van bi axikal muslim mooy amal njortu rafet ci sa mbokku jullit yun saa daan wax ci xadis iyaakum wa vanna fa inna vanna ak dawul xadis maa ngi leen di moytuloo njortu gu ñaaw ndax njortu gu ñaaw moo gën a nekkee di dëgg ci wax yi moo gën a nekkee di dëgg ci wax yi mooy kon yow xibaar bu la dikkal ci àdduna bi ak fu mu ci sa mbokku jullit bul gëm amal njort bu rafet ci sa mbokku jullit maanaam cosaan ci jullit mooy jullit dafa set wecc cosaan ci jullit mooy jullit ku baax la wax nañ la ko bul gëm amal njort bu rafet diw lii laa xam ci moom wala nangam bii lii laa ci xam ba keroog ñuy indi ay preuve ñaareel bi mooy su rumeur amee na nga leerlu ndax dëgg la wala du dëgg leerlu ndax dëgg la wala du dëgg ndax loolu day waar la maanaam dëggal mbir boo xam ne nekkul dëgg ndax yun saa sallam nee na ku dëggal rumeur kooku ak ki ko sos benn lañ maanaam leer leerlul ba nga am lu leer surtout nag ci jamono bi ñu tuumaal nit fu mu mënti doon ab jullit fu mu mënti doon ñu tuumaal ko njaaloo te amoo seede yu leer yoo xam ne gis nañ ko ni ko war a gisee yow nga dëggal loolu ba noppi di ko toxal loolu lu la moo tax nit ki su ko xibaar dëgg dikkalee mu nekk rumeur na ut li nga xam ni mooy preuve lii dëggal lool su ko amul na maandu ci loolu moo tax Ibnul Qayyim dafa daan wax man uniya bi bin naari wal firdaws shugila an qiila ki nga xam ni dafa yittewoo safara ak ajjana nga xam ni yitte mooy ajjana ak safara kooku wax nañu wala dégg naa daf koy sori foog naa wala dégg naa nit ñi ñu ngi wax naan daf koy sori ki nga xam ni dafa yittewoo àjjana ak safara yén saa sallam daan wax ci xadis naan bi sa matiyatu rajuli zaamu mu ne li gën a bon ci warwaay yi nga xam ne nit da war mooy foog naa nit ñi nee nañu warwaay bi gën a bon nit ki di ko war mooy foog naa nit ñi nee nañu nit ñi nee nañ nangam nit ñi nee nañ sàngam mu ne amul jikko bu gën a bon jikko boobu naka noonu nit ki su déggee rumeur bu mu nekk ci ñi nga bu mu bokk ci ñi nga xam ni fu mu déggee rumeur rek day gaawantu di déglu lan la surtout ñu koy wax ci jullit wala ñu koy wax ci ay dëkku jullit gaawantu di déglu sa waay dégg nga kaa bu bees bi am dégg nga diw liñ ko waxal dégg nga soxna sële liñ ko waxal dégg nga waajale liñ ko waxal dégg nga nit ku baax gële liñ ko waxal maanaam di déglu loolu lu ñaaw la te yàlla bi muy melal banu Israil muy yahud yi loolu la leen melal. yàlla dafa ni banu Israël daf leen arak daf leen rëbb mooy daf leen génnee ci yërmande bi muy tudd jikko yi am daf cee boole sammaa'una lil kadib mooy ñoom dañoo nekk ay nit yoo xam ni du ñu deñ di déglu ay neen di déglu ay fen di déglu ay toxal yoo xam ne ni dañ koy toxal loolu mooy seen mbir saa yi dégg nga li ma dégg dégg nga audio bii dégg nga gis nga vidéo bi gis nga nangam gis nga sangam loolu mooy seen mbir loolu jikko yahud la yahud yi loolu mooy seen jikko te li tax yàlla rëbb leen loolu bokk na ci sa maaw na lil kasib yow soo gisoon sama ko julli di def mbir sax da nga war a tourner làqatu suturaal ko bañ ko wax mais yow moom fu ñu waxee jullit nangam rek nga gaawantu di ko déglu wala di ko xool nan la affaire yi demee loolu day dem ba lu bon dafay oyof ci yow fait divers soo koy déglu wala di ci bàyyi xel da dem ba lu bon day nekk lu banal ci yow ku ko mënti def du garaaw te dafa war a nekk loo xam ni lu garaaw la beneen bi ci topp mooy nit ki su déggee lu ban bu mu ko toxal su déggee rumeur bu mu toxal rumeur boobu saa waay dégg nga diw li mu def diw de moo def nangam di ko dëggal maanaam di ko tasaare àdduna bi ñëpp di ko dégg dégg nga diw li mu def di ko toxal déedéet jullit du def noonu suñ sosalee jullit xamoo ndax dëgg la am du dëgg bul toxal suturaal ko bul toxal loolu di ko wax ci sa làmmiñ waaw ndax yàlla subhanahu wa taala la waxoon saxaaba yi maa yambagi lana an natakallama bi haada maanaam maa kaana lana an natakallama bi haada in haada illa buhtaanun azim maanaam yellul ci ñun ñu wax lii yellul ci ñun ñu wax wax ju bon ji lii de sos la sos goo xam ne dañ ko sosal kii rek maanaam jullit suñ tuumaalee moo ko jullitam loolu la war a wax maanaam warta wax diw moo ko def wala defu mais suñ tuumaalay jullit neel yellul ci ñun ñu wax loolu parce que ñun xamuñu jullit bi noonu la war a def ñetteel bi mooy jullit bu ñu tuumaal wala ay rumeur di daw ci ay jullit wala ci ay dëkku jullit suñ ko waxee yow défendral jullit bi ci li nga ko xam li nga ko xamal su fekkee mbaax nga xam ci moom seedeel mbaax googu su fekkee ku tedd lu tedd nga xam ci moom seedeel teddaange googu moo tax loolu su dikkee défendral sa mbokku jullit ndax ñëw na ci benn xadis boo xam ne mi ci abu ci sunan abi daawud muy xadis abu darda yén saa sallam daan wax naan képp koo xam ni défendre nga sa deru mbokk yàlla dina défendre sa yaram ci safara yowmal qiyam mooy tuumaal nañ sa mbokku jullit wala waxal nañ sa mbokku jullit aw mbir indiwuñ ci preuve bu leer xanaa foog naa wala dégg naa rek yow jullit bi nga dégg loolu nga xam ni sa mbokk mi ku baax la nga seereel ko défendre ko yàlla dina la défendre yowmal qiyaam ba doo dugg safara kon nañ moytu rumeur nañ sori ay rumeur xam ni musiba la xam ni yàlla daf ci mbugalee nit ci bàmmeelam xam ni yàlla def ci rëbbee nit àdduna ak àllaaxira ndax yàlla bi muy tudd ñi nga xam ni ñoo tàbbi woon ci rumeur boobu daloon soxna si yéen saa sallam di suñu yaay Aïcha dafa ne ñooñu doon tudd loolu yàlla dina leen mbugal ci àdduna di leen dina leen mbugal alaaxira dina leen mbugal adduna dina leen mbugal alaaxira surtout nag nit ki rumeur boo xam ni rumeuru njaaloo la loolu lu doy waar ndax yàlla subhaana taala nee na ku indiwul ñeenti seede ku indiwul ñeenti seede yoo xam ni ñoo gisanoo te dañ gisanoo nekk benn kooku faasiq la kàccoor la même su fekkee li muy wax dëgg la ndax cosaan ci jullit mooy ñu suturaal ko mooy ñu suturaal ko lu dul koo xam ni moom bandi la pervers la nga xam ni suñ ko suturaalee day continuer di def lu bon waaw ah, koo xam ni moom suñ ko suturaalee day continuer di def lu kooku moom ci charia dafa bokk ci charia ci diine ñu fësal ni kii bon la ba nit ñi moytandiku ko ba ñu mën ko teg fi ñu ko war a teg mais jullit tàbbi ci mbir yow nga ci am sikk sàkk wala nga ci am déng-déng wala yow kott yaa ko gis suturaal sa mbokku jullit suturaal sa mbokku jullit ngir yàlla subhanahu wa suturaal la kon mbokk yi nañ dellu si waat suñu diine nañ maytu rumeur yi nañ maytu ay mbir yu ñuy dégg ci ay jullit moo xam senegal la moo xam bitim réew la fu mu mën ci doon loo dégg ci sa mbokku jullit loo xam ni safaan la mu leer na ne yow doo mënoo def loolu yow yellul ci yow nga def loolu kon bul nangul ni sa mbokku jullit mën naa def loolu bu nangul sa mbokk jullit mën naa def loolu allahuma hadina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt wa qina sharra ma qadayt allahuma asturna allahuma asturna fi dunya wal axira allahuma asturna fi dunya wal axira allahuma asturna fi dunya wal axira allahuma asturna fi dunya wal axira allahuma ij'alna min as-sadiqin allahuma ij'alna min as-sadiqin allahuma ij'alna min as-sadiqin allahuma ij'alna min awliyaik allahuma ij'alna min awliyaik allahuma ij'alna min awliyaik اللهم اجعلنا من أوليائك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثبتنا على الدين اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله